jekkum sikim taaru yewen si xabdu waajaangi ay Mbàkke yàlla na la buur yàlla defal kaaraange si xabdu Mbàkke yaa sopp Bamba sopp Cerno Gorsa yaa bari ngor bari tegginam kersa guddal sa fan wi mel ni a sa waalo sa maam ju baax ja dambe woon ba waalo ñoo ngi leen di nuyu nag te di leen nuyoo fii eh, ci kër Serigne Cheikh Khady mi nga xam ne mooy wayjuru jëmm ji ngeen xam ne moom ngeen jàkkaar lool di Serigne Cheikh Abdou Mbacké kàddu yi nga xam ne nag dañ koy yëkkati noo ngi koy yëkkati ci turam waaye it des na wax it suñu digg ak moom waaye suñu digg ak euh, diggam ak sunu wayjur Cheikh Mouhamadul Fadal Cissé mi nga xam ne tey moo sos kóllëre googu te sëriñ bi di ko doxal nu koy wéyal ci moom di gërëm bu baax Serigne Fallou Niang mi nga xam ne moo doon yëkkati bayit yu am solo yooyu ci dund ak taxawaay ak jikko melokaanu jëmm ju baax ja di Serigne Cheikh Khady Mbacké ak jàmbaar ji nga xam ne tey liggéey bi nga xam ne moom la ko waajuram wa bàyyee yàqu ci dara ndax soppeem ba Cheikh Mouhamadul Fadal si da daan wax ne lu waay bokk bu mu yam rek ca lekk lam lam fa fekk ne ci lu koy yokk moo gën fexee jekk ñeneen ñàkk ragal leen gàkk waaye ab Abdou Mbacke gàkkalul te it gagul te ku gag mu gàgganti la kon sa wuy sa sa soppee ba moo wax loolu nee na lu waay bokk bu mu yam rek ca lekk lam fa fekk ne ci lu koy yokk moo gën fexee jekk ñeneen ñàkk ragal leen gàkk te yow nag Mbacke wax dëgg yàlla li nga nekk yokk nga ko ndax dañ ne lu waay bokk boo yokkul rek yaa wàññi kon nag ku xool tey sa taxawaay xool ñi nga xam ne tey ci dëkk bii di daalul Muxti ak taxawaay bi nga fi am ak yoonu murit sa taxawaay kenn ku nekk xam na ne liggéey nga ci kër Serigne Cheikh Khady Mbacké ndax nag léeg-léeg nit juróom dana ko liggéeyal maanaam nit danañ togg xéewal ba mu egg jox ko mu mu këpp bool ba ah Mamor Baye waaye nag Serigne ab Abdou Mbacké macha allah mujjewul benn yoon puso bi mu réer ndax ay at a ngi nii ñu du fi ñëw. Serigne Cheikh Abdou soxorul iñaanul rëyul te it xeebul kenn soxorul iñaanul réyul te it xeebul kenn te jikko yooyu nag dafa bari ci jamono ji bari na ñoo xam ne soxor iñaan rëy ak xeebaate moo nekk ñoom kuñ gis defe nañ ne ñoo la gën sëñ Cheikh Abdou nag kum gis defe na ne yaa ko gën ndax xam na ne inda akramakum inda Allaahi atqaakum suñu borom subhaanahu wa bi nga xamante ne wax na ne euh, lépp lu mu bind doomu aadama ko ci gënal te it moo ci gën waaye ci biir doomu aadama yooyu nag dañoo gënante lay indi ngëneel la nag mooy inda akramakum inda allahi atqaakum te loolee la Serigne Cheikh Abdou mii nekk muy jëmm ju baax jëmm joo xam ne fii jamono toll mën nañ ne royukaay la référence la kenn mësul dégg mu yëkkati doom ñu ne lu ñaaw lii ñu ne ku ko wax ñu ne Serigne Cheikh Abdou moom Baye Cheikh Khady mu sàmm saa yu nekk mi ngi dox ci lu baax waaye mi ngi koy jëf xam ñu bari dañuy toog naan yàlla nañu yàlla may jàmm ay jàmm des koy ñaan waaye des koy jëf Serigne Cheikh Abdou nag day ñaan jàmm waaye teewul mi ngi koy jëf jàmm nag euh, looy jila sa digganteeg nit ñi ñëpp la seqal jàmm ñëpp la seqal jàmm ñi mu bokkal sëriñ tuubaa ñëpp weg nañ ko ñi mu bokkal. borom daarul yi ñëpp wek nañ ko waaye ñi mu bokkal diine ji ñëpp wek nañ ko te yaakaar naa ne ku xool conférence bu am solo bii nga xam ne at mu nekk mu ngi koy amal di tànn ay thèmes yu am solo di ko waxtaanee boobay yàquteg jamono ji booba seegul fii fii jamono toll tey ak coow lu bëri li booba seegul fii Serigne Cheikh Abdou nag kon daa teeloon a xam fi jamono jëm moo tax mu daw di ko kar <laughs> ah dafa moon vision ama mor dafa teeloo na xam fi jamono jëm mu daw di ko kar visionnaire la moo tax dañ koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér. ku yàlla mayoon. ku yàlla mayoon la. rawatina langue wolof. rawatina langue wolof. man yaakaar ko jekkoo. sëñ bi nee na yaakaar naa ni mu ko jekkoo. nit jekkoo ko noonu yombul. nit jekkoo ko noonu yombul. waaye loolu lépp li ci loolu yëpp li ci solo. waaye yàlla du koy mayoon jikko yu baax. qualité yu baax a baax. yàlla may ko qualité yu baax a baax. yoo xam ne ku jaxasoo moom mënoo xam. yoo xam ne ku jaxasoo wut ak moom mënoo koo xam. bari na ku nit ñi naw te fàllu naw bari na ku nit ñi naw te sëñ fàllu naw naw la. moom da daan waxtaan ak sëriñ bu baax a baax. ne mi ngi fàttalikuy jamono. daa amoon jafe-jafe ak benn baas. daa amoon jafe-jafe ak benn baas jaañ. ba liggéeyatul. mu am ku mu waxtaanal moom sëñ bi. nee na mu ne ko mën nañ koo jël ci sunu télé. nee mu wax ko ko. mu ne ko ma sañoon sëñ bi loo ma tànnal ma jël ko. waaye am na ñoo xam ne ma sañoon duñ ma fay weer. ndax fa ñuy jëlee seen alal bëgguma ko. te bëgguma cee dundal sama njaboot. nee lii sëñ Fallou jaar na fa ak sëñ bi. mën naa wax turu bi. mën naa wax turu borom télé bi. ku yàlla dimbali woon ku yàlla dimbali woon la sëñ Fallou. gëmoon sëñ Touba. ku gëmoon sëriñ Touba la sëñ Fallou. lim amoon la woon. nee na sëñ Fallou Cissé lim amoon may la. du njàng du dara. wala amul benn baat boo koy laaj. sëñ Fallou amul benn baat boo koy laaj. muy xaar soog laa tontu. wala mu koy xalaat. nee mosu koo gis de. te yaakaar naa ne maanaam li fi bàyyi. te yaakaar naa li mu fi bàyyi. bu ko Sénégal xamoon. turam dootu fay ci Sénégal. dootu fay ci Sénégal. moom nag nee na fi ba jóge fi ñu bari xamuñu ko yàlla na yàlla